salaamaaleykum cheikh internet ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay di nuyu euh, Sénégal yëpp di nuyu ndakaaru rawatina euh, ñi nga xamante ni ñoom laa dëkkal muy la Médina ñu ngi jiital nuyu suñu responsable moral Assir Mouhamadil Moustapha Sy hafizahullahu wa ayadahu wara di beral nuyu aussi suñu capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha euh, tey rek ñu ñëwoon pour waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy wàllu ndakaaru donc pour wax donc ñu am loo xamante ne bëggoon nañ ko leeral parce que bu ñu gisee tam bu taxaw du wax parce que dañuy jàpp ni tam en tant que président 1000 pour cent Médina waaye tey ñu am lenn loo xamante rek bëggoon nañ ko indi waxtaanee ko leeral ko par rapport ak situation yi nga xamante ni moom lañ jëm euh, ku ñu xam xam ni tamit euh, Tamsir bien avant dafa nekk njabootu ak Seydi Mouhamadul Moustapha Sy bokk ci daayratul Moustarchidine wala Moustarchidan di ci def activité nekk njaboot di ko exercer ba pare euh, di dund tarbiya bi nga xamante ni moom la suñu responsable moral ak Seydi Mouhamadul Moustapha si di ñu jox donc tey bu ñu demee ba situation taxaw ku toll góor gi di Seydi Mouhamadul Moustapha joxe ndigal par rapport ak li nga xamante ni moom mooy élection législative yi ñu war ci am taxawaay bu wér donc tey day jaadu en tant que njaboot euh, bi nga xamante ni ci bokk ci daayiratul Moustarchidina wal Moustarchidaat ñu jëfe ndigal bi nga xamante ni moom la suñu wasila suñu kilifa suñu responsable moral joxe Seyd Mouhamadul Moustapha Sy di président parti PUR donc moom mi nga xamante ni dafa jël ne ñu taxawul li nga xamante moom mooy euh, coalition sàmm suñu kàddu donc tey ñun ñëpp xam nañ ni position boobu la noonu la góor gi jël kii di Serigne Moustapha Sy di président parti donc ñun en tant que njaboot euh, nekk taalibe donc tey ñu xam ni Tamsir dafa ñëw pour jëfe ndigal bi nga xamante ni moom la kilifaam joxe pour ñu taxawu li nga xamante ne mooy coalition sàmm suñu kàddu donc ñu bañ a xam ni euh, bañ a jàpp ni Tamsir en tant que président 1000 pour cent moom moo ñëw di def politique par rapport ak li nga xamante ni moom moo nekk ci terrain bi donc tey bu ñu wàccee dañoo ñëw jëfe ndigal li nga xamante ni moom la góor gi Assir Mouhamadul Moustapha Sy hafisahullah waaye loo war a joxe donc looloo waral tey euh, ñu indi kàddu yi pour partager ko ñi nga xamante ne ak suñu mbokk waa Médina parce que ñëpp xam nañ ni Tamsir dafa nekk président 1000 pour cent Médina mu nekk association bi nga xamante ni dafa politique donc doxuñu ci politique waxuñu ci laaluñu ci taxewuñu ci donc tey bu ñu campagne bi jotee ñu gis ci tam donc ñu bañ a jàpp ni tam bi nga xamante ni moom mooy nekk ci 1000 pour cent wala 1000 pour cent bi mooy politique mais tam en tant que njabootu Assir Mouhamadul Moustapha Sy moo wàcc ci terrain bi jëfe ndigal bi nga ni moom la ko kilifaam jox di Assir Mouhamadul Moustapha donc tey defuñu benn trafic d'influence wala intoxication par rapport à la situation bi nga xamante ni moom lañ jëm woowuñu kenn parce que 1000 pour cent bi ñëpp ci bokk yam parce que c'est la c'est l'association bi nga xamante moom naan c'est la mamelle nourricière de toutes les associations qui sont à la Médina ñëpp ci biir donc ñi nga xamante ñi ngi de gauche de droite y a tout le monde dedans donc woowuñu kenn parce que heure politique la kenn ku nekk mën nga dem ranger par rapport ak fi nga xamante ni moom ngeen jëm waaye tamit bu yi weesoo ñu xam ne Médina ñoo ko bokk ñoo mën a ànd associé pour liggéey li nga xamante ne moom mooy suñu gox donc looloo waroon tey euh, Tamsir ñu gën ko miin ci Tampro Euh, ñëw pour wax li nga xamante ni jàllale message bi ñu xam ni euh, loolu moo waroon tey suñu taxawaay fii pour wax li nga xamante ni mooy message boobu noonu. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Dakar ñu ngi beral nuyoo bu baax a baax waa Médina bi nga xamante ne fekk si nañ leen tey te ku wax Ndakaaru xam sa que représente Médina dans Dakar euh, tey nag la jeunesse pure de Dakar dañu ñëw feggoo ci ak suñu mbokk. ñëw feggoo si ak sunu frère euh, Tamsir ndax ku ne xam na li nga xam ne mooy taxawaayam ci mouvement associatif yi fii ci biir Médina loolu nag bu amee tey mu def une démarcation wax ak waa Médina wan leen position am ci li nga xam ne mooy topp ndigalu président du parti pure bi nga xam ne euh, casquette politique am moo tax bu ñu jëmee ci élection yu ni mel mu def démarcation wax ni kat. na ñëpp jàppale coalition bu mag bi nga xam ne mooy coalition sàmm sa kàddu loolu nag dañ ci am mbégte ñëw soutenir suñu frère ndax bu demee ba waa Médina gis taxawaayam ci biir gox bi ba wóolu ko association yu bëri àndandoo ne 1000 pour cent Médina defe naa loolu mën nañu taxaw tey ni bokk na ci yenn ci exemple ñi nga xamante ne ñoom la Cheikh Seydi Mouhamadul musa Fassi defar te ku xam Serigne Moustapha xam ni depuis plus de quarante ans mu ngi œuvrer au niveau du Sénégal et dans le monde entier ci fexe nit mat li mu doon waaye ngir fexe nit mat nit donc di ko di ko encourager waaye di ko féliciter ci leeral bi nga xam ne def na ko à l'endroit de la population médinoise di ko wax ni euh, encore plus jamais euh, la jeunesse pure de Dakar rawatina ñun waa Médina yemuñu si rek ñun Médina waaye muy Gueule Tapée Fass muy plateau muy Fann Point Amitié ñun ñëpp ñu ngi ànd di ko di ko di ko sargal ci li nga xamante ni taxaw na leeral ko ndax loolu mooy cëram ah ñun nag dubul casquette la ñu amee am na fu ñuy taxaw ne njabootu Serigne Moustapha lañu doon ay taalibe waaye bu jël position jotee élection yu ni mel nekk élection yu am solo ci dundinu réew mi defe naa taxaw xool li nga xam ne mooy joxoñam ñu daal di koy topp. pour l'intérêt général de tout la nation loolu nag buñ ci gisee engagement bu ñu toll du ñu def rek lu dul encourager ko waaye di jox rendez-vous encore une fois tout la population de Médina di leen wax ni la liste bi ñu war ànd votel ngir njëriñu Sénégal mooy la liste sàmm sa kàddu avec ñi nga xamante ni mooy coalition bu mag bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox rendez-vous très prochainement